mbokk internet yi da leen ak jàmm seen d'information métro Dakar tey juin 2020 cours yi a reprendre fële nga xam ne moom mooy école yi demoon nañu nag doxantu ba fële nga xam ne moom mooy école japonaise bi nekk fee ca Mariste foofu nag bi ñu fa yegsee gis nañu organisation bi jaar na yoon torop balaa ngay dugg dañ lay jëlal li nga xam ne moom mooy sa température xool ndax sa température yéegul boo duggee ba si biir di nga raxas say loxo ba mu set élèves yi tamit gis nañ li nga xam ne moom mooy distanciation sociale bi respecté nañ ko parce que dañ leen teg gis ni dañu rax dinañ raxas seen loxo waaye bu ñu koy def aussi dañuy respecté li nga xam ne moom mooy distance bi nekk en nga xam ne moom mooy na fa li nga xam école japonaise bi nekk Mariste am nañ ay eau de javel ak li nga xam ne moom mooy ay saabu ak lii di ay alcogel la bépp matériel boo xam ne mën na leen permettre ñu mucc ci feebar bi nga xam ne moom mooy Covid 19 dem nañ tàllal suñu micro nag ki nga xam ne moom mooy directeur bu école bi mu gën ñu ci indil ay leeral euh, depuis bu ñu ci alors nous ñëwé liñ leen euh, même dañ koy soxla ci matinée comme récréation lu ñuy lek wala dara nañ dem jëndi ñu puisque puisqu'ils sont sous notre responsabilité bëgg ñu ramasser quelque chose de de mauvais ci biti ko fi mais en même temps tamit dañ on a abusé de la sensibilisation depuis ce matin président CGE il ne fait que de la sensibilisation les enseignants ne font que de la sensibilisation distanciation ci classe yi nous, avons un candidat, on a utilisé cinq classes pour s'orienter leen ci biir classe amul amul contact d'abord qui classe qui ci classe même la distanciation est respectée on a demandé aussi aux enfants de porter les masques waaw nañu sol masque yi nañu sol te buñ dindi te ci donc sensibilisation bi maintenant nous 5 classes Puisque puisque maîtres yi doyna, am maîtres responsabiliser pour les classes ñom ñoy jàngalé mais ñi ci dess dañ leen jël comme ay surveillant des autres classes chaque classe ñu jël ñaari maître batalel ko ko ñooñu bu xalé yi di génn c'est devant eux ñom ñoo leen di top ba ci cour bi reste pour les mesures de distanciation yépp yépp manu ñu wax ni nag lépp dañ koy matal mais en tout cas ñun fii def nañ suñu kem kattan pour que vraiment les conditions soient optimum

Euh, siwo bi ñuy éponge bi ñuy pour que donc yépp dal ñu désinfecté ko mu baax waaw waaw

personnel enseignant bi aussi mu ngi fi te loolu moo tax mu mu nekk fi ñi nga xam ne dugguñu classe donc dañu nekk ci cour bi comme des surveillants di xool di veiller ci loolu di xool xale yi pour que mesure barrière yooyu ak distanciation bi ñu mun ko respecter xam nga xale yi nag moom ay xale lañ parce que boo tourner wane gannaaw tuuti ñu def leneen loo xam ne bokk ci d'ailleurs fi ñuy wax ak yow nii inspecteur euh, jaar na fi sànq rappelé waat loolu euh, ñoom ñëpp jaar nañ fi sànq rappelé waat loolu enseignant yi rappelé waat ko élèves yi

seen xarit yi nekk ji ñu bokkal classe la ku nekk boo respecté lañ la wax rek yàlla mën nañu musal ci ci ci ci ci mbas mi euh, merci métro Dakar